ni ñoo jógee jam ñaajo mu lay géy jóge Sébikotane di Lo Jogué Bargni di Abou Ahmed sek Jogué Sendou di Matar Mbengue ak responsable yi fi teew yépp di leen gërëm di leen sant di nuyu bu baax le président du conseil départemental l'honorable député Souleymane Ndoye nga xam ñoo fi nekk de très grands responsables mën nañ ci citer Demba Diallo mën nañ ci citer ñi nga xam ni responsable jigéen ñi teew fii nga xam ni dañoo mobiliser wu ñoom ñëpp teew mën nañ ci citer notre doyen Birame Doy Diallo

te bi ngeen koy def fekke ko xanaa bi ngeen koy mottali ngeen ma woo tubaab jalaaw ñu def maa ngi leen di gërëm di leen sant ci loolu di gërëm Salam Gueye conseil économique social environnemental premier secrétaire élu di gërëm Assane Ka ñoom ñëpp c'est de hauts responsable fii ci biir bu Tëngéej xam ni nag ma delluwaat ci si ñoom d'abord Assane Diop Assane wax dëgg yàlla xaw ma ku jàppale président Macky Sall mais yow yaa ngi jàppale président Macky am na ci ay firnde yu leer diiru ngeen di organise meeting bi ñëw nga ñaari yoon sama bureau pour meeting bi taxaw ma ñaari yoon sama bureau wax ñi koy organiser ni leen kenn mënul organiser meeting ci département Tëngéej te xalaatoo ministre Oumar Gueye ñëw président ci wàllu affaire kon loolu nga def maa ngi lay gërëm di la sant il faut que unité am ci biir parti bi pour que échéance yi ñu jëm ñu am ci ndam te wóor na ma ne dinañ am ndam dinañu falaat président Macky Sall au premier tour prochaine élection présidentielle. may gërëm Ousseynou Diallo ci waxam qui rafet yi mu wax place am fii la fii ci li ñu organisé def ko ci département bi place am fii la ñu ngi koy wax bismillah ci la grande famille bi ñu dans l'unité dans le département de Rufisque. te ku déglu xam xam ni ci loolu la nekk ànd ak ñun mu liggéey di gërëm jigéen ñi wax naa ko ay jaara jéen ñëw na aji Awa Gueye et tous les responsables yi nga xam ni ñoom Kiné Gueye ñëw nañu tey Aïda Sabara également di jigéen bu am solo ci dispositif bi di defal nag une mention à madame le premier ministre Aminata Touré chance bokk mon gouvernement gouvernement mu que d'abord ministre de la justice garde des Sceaux mu def fa liggéey bu pour nous n'a ko ci Sénégal président Macky Sall naw ko poste bu magama, a premier ministre nous fal le premier ministre du Sénégal ma nekk ci gouvernement boo xam ni moom mooy premier ministre doon suñu kilifa ci gouvernement bi mu def liggéey bu rafet parce que président du juum mukk ci tànn premier ministre premier ministre bu mu tànn rek baax na jamono yam koy tànn na moo moo ko xam mais suñu waxantee dëgg Mimi Touré liggéey na lu am solo ci gouvernement bu Sénégal engagement détermination fulla ak fayda porte portefeuille ministériel bi mu de justice garde des sceaux ak primature de mu une qui est ci très significatif dans tous les plans li ma madame le premier ministre Mimi Touré simplicité ak oyofam am nañu bare bu ñu yoree ndomba tànk ko Nenye men ne kou hawa den lo gina ou. Men li me kisti moun, di moun ne ketou l premiye minist, de manyer aktif, man li me ranyen mwen, angazman ki prezident la republik, di amon yo yoy le gine yop. Li kon li e ek prezident, doun nan votan. On ta prezident, tef kon envoye spesyal. Founen mou kope youn ni, lounen mou yohag moun, loun ham ni, youn nye di yon ham. kon Mimi ñi ngi lay gërëm ñi lay engagement sa détermination cette disponibilité ci xalaat ak xarañ ak 2015 2015 bi ñu dugg ni lu bon bon dinañu am 000 tonnes de riz loolu li muy wane mooy pante boobu buñ ko continuer avant 2017 ñu am autosuffisance en riz milliards yi daan e-, jëlee jël di ko génne ci comme importation mu des ci biir Sénégal te léegi mbayum ceeb fépp lañ koy bay Saloum day bay ceeb Saloum dootul bassin arachidier rek bassin arachidier la bassin rizicole la da di bay ceeb ceeb bu bare bay ngeen ko ren bu ngeen jëlee gerte gi 700000 tonnes 2014 1 million de tonnes la ñuy xaar 2015 loolu les légumes la même chose kon Sénégal mi avancé infrastructure dem électricité bi coupure na bi ma rapidement les bourses familiales xam ngeen ni ñun day école ñu jox la bourse école voilà, université les défenses bourses, bon vous bourses si aïe goulet président Macky Sall 200 000 familles 2015, 300 000 familles 2016, 30 milliards de le de tu veux. Alors qu'est-ce président mon la bonne gouvernance. C'est quoi la bonne gouvernance? la reddition des comptes? C'est que dem qui fait. bi ñu nekkee ministre de la léegi du waay neex nga def kuy xam li ngay def lan président Macky Sall transparence dafa am benn anecdote bu may nettali rek falaay falaay tëje mbir mi benn waay dafa ni jamono Abdou Diouf dafa am ministre bu doon dox dix mille francs wadd ci poosam nekk à côté ni ko monsieur le ministre yow de 10 000 yi la wadd jox ko mu jël 10 000 yi lamb ci beneen poche yi 2000 francs may xale yi. jamono Ablaye Wade ministre bi dox rombaat xale yi beneen ministre 10 000 francs mu wadd xale yi ni ko ah, monsieur le ministre 10 000 yi de teewloon mu jël ko génnewaat yeneen 10 000 yeneen 20 000 doolu ci muy 30 000 mu jox ko jamonoy dox ministre Macky Sall organiser lu mel nii pour suqali pour delloo njukkal président Macky Sall loolu ñëpp ko war a def Sine Sal waa Sine Saalum def ngeen ko muy ministre Assane Diop di ministre Mimi Touré ah yaakaar naa ñeneen ñi tam dinañu yëngatu yéen nag jël ngeen ndam li parce que initié ngeen lu am solo kon nag vive le président Macky Sall vive notre parti APR vive le Sénégal la victoire prochaine du président aux prochaines élections présidentielles ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant